di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla def ci suñu senegal gi jàmm ak salaam di ñaan yàlla suñu mbokk mépp ni yàlla fa yàlla wis ndox mu sedd def fa galaas gu sedd guy ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yépp am jàmm ku ne di for uh, say dërëm yu ànd ak ngërëm ci darajay Seydina Muhammad bu loolu paase tey ci maajoor ak joor lay ñëw maajoor joor ak joor moom man naar moom mënuma koo comprendre ndax naar tey li xew ci jamono ji rek moom la jour boobu rek la fi joué lii lu am la ndax da ngay gis koo xam da lay yàqal yàq gu metti ba pare ñëw saxaw sa kanam di la ma masawu loolu mooy dëmm rey la jaale la waaw loolu moo fi nekk bari na nag bari na wax dëgg yàlla am film bi moom liñ ci joué yëpp presque booy xool lu ci bari dafa am waaw te nag joor ci boppam moom dafa mel ne yàlla da koo defal daf yàlla ku yàlla nar dimbali la daal ndax boo gisee lu tax mu comprendre ne lii loxo naar jugu ci te loolu lu am la tamit nit da ngay xam nit jamono ji léegi metteetul boo dee visé nit di ànd ak moom mooy dugg sa biir di génn di la yàgg nga koy yàgg a gis am na yoo xam ne ni heure bu ko defee rek warul la bett mooy diggante eh, naar ak kii yaama kenn waxute waxam moom xale la am na yoo xam ne ni jot a dugal sa doom nit da nga doo yàq sa doom tey naar dafa yàq doomam ndax yaama tey ji bu màggee rek day defe ne lii mooy dëgg moo tax yaru xale yi ñu defaraat ko lu am solo la waaw dañ xam ne ndey daal moom dafa foor ci doom loo nàmpatal sa doom rek sa doom loolu lay toqamtiku moo tax yaru xale yi il faut ñu jëlaat ci suñuy responsabilité di ko xool bu baax di ko seetantal ndax ku nekk rek la sa ndey di liggéey sa kër baay rek mooy feeñ la ngay def rek ci kanamu xale bi rek mooy feeñ moo tax xale li ngay def ci moom rek nay nekk loo xam ne lu baax la moo tax yaama yaayam da ko nàmpatal ci bon ba mu jël bon rek laxasaayoo ko na ko ruus lànq ne du ko bokk ak kenn naar moom man waxu may waxam naar ko bon la may ñëw nag ci ijo peer ijo peer moom ndeysaan moom yàlla baax na ndax moom lu baax rek lay seedeel naar di ko ko kii te naar ruusut ragalut arasut lu mu ko def ci lu bon defe na doyut lu mu ko def ci lu bon rek defe na moo naar moom kañ lay baax naar kañ lay baax naar ban na bañ na joor dar na ko rek ne dara man daraan ay waay ne dimbali doomu jàmbur ji mu xàppi kafri mën nga nit kuy dund ci àdduna nga yàlla may ko jàmm nga ne du moom nag moo nara sonn ndax yàlla may na ko jàmm ba pare man li ma gis foofu tamit waa dig dañoo war a gaaw recherche papay ki nga xam ne moo yaama pour mën ko téye parce que affaire bi dafa yomb torop dafa yomb torop nii dafa yomb torop wax dëgg yàlla am yomb na torop jékki-jékki rek mu ngi indil scandale boo xam ne nii mooy loolu daal ñun daal kontaan nañ ci film bi macha allah ñu ngi koy suivre di ko seetaan topp ko nag di ko wër xeet nañ duñ xaar sax ci télé bi ci ci YouTube bi lañ koy wër waaw wow yéen moom ca kaw ca kanam ci rek ci loo baax jàmm rek ngeen am. salaamaaleykum sama waa groupe Serigne Madior ak Dior maa ngi leen bu baax yéen ñi nekk si groupe yëpp maa ngi leen nuyu leen di wax ne naar moom chaque jour moom day am victoire rek loolu moom mënut a nekk moom ak lu mu mënti doon daal moom xanaa chauffeur bi sax moom ñu buñ ko jàppee comme que moom nee na oto bi da koo sàccoon chauffeur moom normalement war nañ koo mën a jàpp buñ ko jàppee moom dëgg yëpp danañ ko xam ndax naar moom lépp moom na moom naar moom mënoo nit dangaa am doom bu pare yéene ko jàmm te doomi jàmbur doo leen yéene jàmm lool moom mënta nekk naar moom fi ñu moom war naa war a mën a am défaite moom à chaque fois nga am victoire moom mënta nekk moom. salaamaaleykum sama gars si lu leen nekk ba lépp jàmm naka wax si ma joor ak joor naar moom naar moom naar ban naaru la la naar bon na naar soxor na. naa doy na waar ah yow damaa xam ne yow sa doomi càmmiñ ah nga jël pression rek teg leen ko rek teg leen ko rek teg leen ko chaque jour ngay def lu bon ndax lan xaalis alali àddina nga xam ne fii lay yem te moom li ma gën a metti gën maa metti mënu sa def dara benn dil ba génn ci lekk ci xaalis ba bu defee dil après yu defaat ko dil yaakaar naa nag muy mujjee waa ji da koy feeñale ndax waaju ji boobu bi tranquille waa de na ñëw di ko fayee ko xaalis waaw foofu la lañ koy xamee foofu la xamee ne moom mi daanaka yëpp moo ko def te joo dox na ko lu leer joo nee na bis boo xamee na loxo mi ngi am na sérieux problème doy na waar daal yéeme na lool.